Je la conseil départemental de Thiès c'était juste par rapport à euh, la sortie hier la conférence de presse de la fédération régionale des tailleurs de Thiès bon d'emblée damay wax rek je ne parle pas à la fédération des tailleurs de la fédération euh, régionale de Thiès je parle de INCAS le directeur de INCAS de nommé Abdouad, qui a cité nommément le conseil départemental ba muy def démb point de 7 millions yi nga ni loolu amul teg aussi 30 000 masques donc du coup 30 000 masques yi amul 25 000 masques la a deux commandes 15 000 masques et 10 000 masques donc mu 7 millions lañ ko or c'est 7 millions 500 globalement muy facture 4 millions 500 à facture 3 millions francs à la veille de la tabaski lañ ko fay bu njëkk bi muy 4 millions 500 mu ñëw fii ne ma man ñi ma ameeloon ñëpp ci liggéey parce que ba affaire yi demee ba tar dafa ñëw ni ma ñëpp dama leena amel donc dama leen indiwoon pour ñu xam ni affaire yi fi la tagué mais tagué wul ci man man na ko dinañ ci def lu ñu mën bala tabaski bi vraiment pour ñu fay ko yàlla def ñu fay leen 4 millions 500 bañ ko fayee 4 millions 500 moom lendemain tabaski mu ñëw après la tabaski ni pression yi léegi parce que ñi ma amee fay li ci des sama coggalub guy la dinaa xool ñu ko de façon man loolu comment faire pour que globalement on vous paye donc on leur doit 3 millions. yaakaar naa ni kii def ay effort de la fay il n'est pas animé de mauvaise foi mais yaakaar na animé aujourd'hui de mauvaise foi waral ndax site Idrissa sec ci dossier bii ci marché c'est parce que animé de mauvaise foi moko waral te ci waay xam nañu ndax xam naa ñëpp xam nañ ne fi président Diattara mo fi ne mom la fi Idriss Seck tek dénk ko signature kon suy wax na wax li am waye di créer ñak nak ay éléments parce que fiñuy ñuy wax ay waxu cent plus de 100 millions d'une dette bu bëgg faa waxu 3 millions près dina am kii moo tax mu bëgg a yokku sept millions lañ ma ameel ñii ci ginnaaw ñoo ko moom nangam ak nangam ak te or demewul noonu et il parle comme si. TVA bi ñu aussi ci biir affaire naan dama ñëw conseil départemental ñi may valsé naan ma di bëgg a dugal lu ci bokkul li waxu TVA fii ku dégg TVA xam ni état moo koy laaj ndax ñun ay écriture comptable rek la ñu am bii 4 500 bi écriture comptable yaa ngi vous verrez bien les 4 500 000. parce que dafa yaakaar ne moom ak ñamu àndal su ma ñu je ne parle pas de la fédération des des tailleurs de Thiès encore une fois mooy ñi nga xam ne moom la ci sekkal mbir mi que ne dañoo jël euh, euh, euh, xaalis bi TVA boobu ñu def ko site bi def ko ci poosam wala waa conseil def ko ci seen poche jàpp naa ni fay TVA trésor mooy fay te il a reçu un règlement bancaire encore une fois c'est pas de l'argent qu'on lui a payé comptant compte ba pare deuxièmement il a insulté même le secteur informel en leur disant que ñoom dañuy raxasu fayeeku la ñu la ñu xam mais moom nekul secteur informel parce qu'il est inscrit au registre commerce au registre de commerce am NINEA balaa ñu koy fay trésor da ko laaj ndax tu es en règle avec les avec les fiscs pour mu joxe juste fiscal et que maintenant il retourne pour dire que oui comme si fait na conseil départemental mo jël xaalisam def ko ci poche am muy TVA bi ko waroon dag daguñu ko ko nan mais dama xamul Abdou ce qui lan lan moko lan moko lan moko japp ndax nit en toute circonstance waxal li deug

yablal ko trésor mooy yi ma leen wan léegi bu ko defee trésor mooy defal seen virement bancaire ku ci ne ca comptam kon donc na wax les choses telles qu'elles sont non pas bëgg a yàq der ak bëgg a de manière de manière de manière de xaw ma nan laa ko mën tuddeeti ci loo xam te ni vraiment doomu aadama daal da wax dëgg donc loolu daal laa bëggoon leeralal askan bi ñu xam ko que ni Abdou Wade li muy wax li mu wax dem ca point de presse ba amul. li am moy li ma wax ni de manière claire donc ma ngi len di gërëm di len sant keuyit yaangi ni mandat yiñ ko defal yépp mu dem trésor mu ni ma tégal len ci table ji pour que mu lèr ci ci Thiessois yépp te buy wax bay tudd ay Idriss Seck ci ay point de presse ak nan way nangam ak parce qu'il est animé de mauvaise foi donc na wax li am te bu fekkee aussi il a reçu il n'a dit que kindaa ki laa reçu te li ci dess ñu ko kay fay au lieu de dire dimanche noon gi pour bolé ci ñëpp voilà ma ngi len di gërëm di len sant